ci site de transformation des produits halieutiques bu Xelcom Xelcom Bargny bi les émission nek ngeen am ko ci ndimbulu wa ONG Lumière Synergie et le développement di LSD tay nak suñu numéro bu njëkk ñu fas yéene dalal eh, ki nga xamanteni mom moy eh, Fatou Samba di présidente des femmes de Xelcom ànd ceeg Ndeye Yacine Dieng Ndeye Yacine Dieng nekk it eh, actrice de développement nekki di yëngu ci site bu Khelcom d' abord damay commencer rek ci euh, président présidente ñu lay dalal jàmm. waaw jërëjëf Assane maa ngi lay nuyu bépp auditeur bu Jokko FM si département de Rufisque ak euh, commune de Paris ak euh, bépp ku ñuy déglu may Fatou Samba di présidente femme transformatrice maanaam jigéen ñi xam ne dañuy soppali jën fële si site de transformation bu Bargny Khelcom ñu lay jaajëfal euh, bu baax a baax euh, soxna si ma bàyyi la nga présenté nga nuyu mbokki auditeurs yi. asalaamaaleykum. waaw dinañ nga koy yëkkati de doonte jeng nga sant quoi. Ah. ma ne doonte jeng nga sant nga yëkkati baat bi rek quoi. <laughs> asalaamaaleykum. mbokk yi auditeurs yi maa ngi tudd Ndeye Yacine Dieng nekk femme transformatrice si Khelcom. jërëjëf kon na mbokk yi ñaar eh, yooyu la dalal tey tomb waxtaan bi nekk mooy rek li nga xamante ni moom mooy soxna yi ci li nga xamante ni moom mooy jeexital ko soppike jaww ji ban pexe daal la ñu def ak ban taxawaay lañu def rek ngir maanaam ñu ñu ñu sowe ci li nga xamante ni moom mooy tolluwaay ko jamono ji mooy résilience ah, bu ñu nee euh, li nga xamante ni moom mooy soppeeku climat changement climatique tey noo ko déggee ci yow mi dëkk ci peggu géej gi ak li nga xam xamante ni moom mooy diggante euh, site yu mel ni ay waxande ay yu ne mel. waaw Assane euh, changement climatique defe naa ñun ñi nga xamante ne ñoo dëkk bari ñi jàkkaarloo ak géej gi mu yóbbu suñuy kër te bi mu laa yóbbu suñuy kër am na yeneen kër yu ne woon suñu kanam di wax encore ni à part kër yi. Euh, tefesu bar ñi ku nekk xamoon na ne digganteem ak kër yi dafa sore woon lu mat ay cent deux cent mètres ndax ñun ñëpp di ay xale doon ba ñu doonee xale booy sangu géej jóge sa kër boo génnee dëkkuwaay boo paree da ngay daw soo ko yegg si si biir géej pour mën a sangu bon bu ñu toogee tey ba plage boobu ñu doon wax xam ne fa lañ daan defee activité euh, transformation produit halieutique fa lañ daan defee gisee xale yi di fa def ay terrain de jeu fa la ñu xooloon itam euh, mag ñi nga xam ne dañ daan dem géej ba mënatuñu euh, tefes gi moo nekkoon seen bërëbu noppalukaay bu ñu toogee ba loolu yëpp xam ne dem na te biñ ko seetloo moins de quarante ans ndax bi ñuy am 20 boo ko géej gi boo xoolee jël foon benn kër donc en de 40 donc bi ñu seetlu euh, côté vingt C'est la que seetlu ne géej gaa ngi fait nag jëm si biir dëkk dëkkukaay yi bu effet changement climatique ndax bu ñu effet changement climatique dafa am loo xam ne ne moo ñu koy firndeel fi mu nekk ndax bu jëkkoon ku nekk mën na mesurer bu dee euh, nawet nga ne wi lay bu dee noor nga xam ne bii weer lay commencé ba leen lay jeex bu dee tàngaay nga mën a wax ni weer moo bokkoon si tàngaay bi weer tel la doon jeex bu dee seddaay nga xam ne weer la doon commencé beneen weer lay mais bu demee ba loolu yëpp ñu seetlu ne jaxasoo am na ba kenn mënatul a ràññee fan la tàngaay am fan la sedd am parce que actuellement ba tey fii boo xoolee si Dakar am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi tànjaar donc sedd bi nga xamante ne mois de mois d' avril ku nekk xam ne ne si biir tàngaay la doon la doon dem. Hmm. loolu yëpp nag bu ñu commencé di ko seetlu di lu ñuy dund bon buñ ne changement climatique effet yi fi mu nekk ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy dund bu baax a baax kon yow bi mu la déggee mooy changement climatique tax na tey ngeen euh, perdre notion temps bi maanaam tey amu leen xam exactement nawet bi kañ lay commencé exactement ndox mi nga xamante ni moom moo doon dugg ci euh, bërëb ba fu muy jeex ci li nga xamante ni moom mooy changement climatique maanaam réeral na leen ci jamono mais am ngeen ay pexe. Euh, maanaam am ngeen ay ay mébét wala ay doxalin yi nga xamante ni tax na ngeen adapté mooy résilience bi loolu tey nan ngeen ko doxalee pour au moins bañ ndoxu géej gi yóbbaale leen euh, ci biir. ndoxu géej gi pour mu bañ mu yóbbaale si géej problème rek mooy euh, li nga xamante ne mooy investisseurs yi nga xamante ni ñooy andi comme ay projet yi nga xamante ne comme ay centrale mën naa de centrale à charbon parce que ñoom ñooy yokk aggravation. changement climatique bi kon bu ñu defoon lépp li nga xamante ne mooy li jëm si investissement yi nga xamante ne mooy mooy jëm si charbon ak li ñu roog moom ñu jël énergie propre yi di ko jël am naa yaakaar ne mu mën a mukki si changement climatique mais tant que defuñu loolu gis dégradation bi nga xam ne atmosphère bi moom la am ak géej gi ni muy avancé comme li ko sama euh, kii wax Fatou wax ngoon mën naa wax ne daal vraiment changement climatique dañu daan dégg mais fi mu nekk ñu ngi dund bu baax a baax a baax mm-hmm. te lépp lu ko waral mooy comme projet yi nga xamante ne mooy utiliser énergie salle yi. Mm-hmm. bon am naa yaakaar bu ñu jëloon énergie propre yi mënul nekk à pour cent parce que amaguñu doole jooju mais am naa yaakaar ñu bari dina wàññi. Mm-hmm. Euh, kon jàpp nga ni changement climatique bi loxoy nit mu ngi loxo loxo doomu aadama changement climatique boo ko déggee loxo doomu aadama parce que doomu aadama ñoo yàq atmosphère. yan xeetu doomu aadama peut être. peut être man. ndax boo gisee li ñuy taal fourne yi matt yi déforester àll bi yooyu yëpp bon suñu loxaan si loxo doomu aadama ngi si bon mën naa wax ne changement climatique bi di ko gën a causer grande conscience am nañu si wàll mais ñun tamit euh, waa dëkk bi am nañu waa àddina si am nañu si wàll parce que ñooy gox garab yi ñooy déforester bi ñooy def lépp loo xamante ne di employé euh, énergie sali mbool loolu la ci li aggravé changement climatique. mbokk yi yéen a ngi seen émission spéciale bi nga xam ni ñu ci and ak soxna nek ci site de transformation des produits halieutiques bu Khelcom ci ndimbalu waa ONG Lumière Synergie pour le développement di LSD euh tay euh doon wax. changement climatique bi am na jeexital ci seen activité muy seen dëkkuwaay muy seen bërëb liggéeyukaay boo doon xayma tey changement climatique bi lan la def ci seen euh, bërëb loo ñuy wax. waaw Assane changement climatique bi ñun defe naa en tant que transformatrice kenn du ñu mën a kenn du ñu ko jàngal mbaa kenn du ñu xaar si ñu wax la ne ndax yàlla dafa def ñun ñuy dund si ñuy dund si jën ku ne xam ne ne euh, géej dafa am température ba nga xamante ne moom la jën. am habitude di ko dund bon bu toogee ba am tuuti nu euh, mu tudd benn jaxasoo bu waree tàng mu sedd bu waree sedd tàng ni muy perturbé ñun doomu aadama noonu lay perturbé jën yi nga xamante ne ñun moom la ñu yaakaar. pour pour liggéey. kon fi nekk nii thème ba xamu leen ne kañ la jën war a mën a am. ba ngeen engagé wu yenn yi. déedéet déedéet parce que dañ daan def boo daan ñun par exemple man sama liggéey.

du la jaral nga nga ngay def chaque jour yaa ngi si site bi chaque jour yaa ngi toog ko si gaal donc trois mois da nga daan toog mën a liggéey am loo xam ne danga nga koy suturloo mais loolu léegi mënatuñ ko parce que ku ne xam ne géej gi bu ne àddina ay nit a fi dëkk mais am na loo xam ne yàlla moo ko fi defal boppam muy par exemple pôle nord ak pôle sud xam ne ay glace la dëkk yoo xamante ne nit mënu fa dëkk mais yàlla moo moo bindee noonu àddinaam

li ñuy utiliser par exemple lu mel ni ay ay ay ay kaw euh, mbuusu plastique ak yooyu dafa wàññi. Euh, euh, ni suuf si amoon euh, capacité di di naan ndox donc léegi ndox mu jógee si si dëkkuwaay ndox mu jógee si asamaan fu mu jëm yëpp si géej gi la jëm donc loolu encore gën a perturbé ah suñu nekkinu nekkinu jën si biir géej ba tax na ji si xam ne dañ siy daan seen doole di si dund yaakaar si seen lépp actuellement am nañu ay problème ndax ku nekk xam na ne si biir Sénégal bien vrai que ne ñu ngi wax ay bateau de pêche ñu wax ne contrat de de mais aussi lii ñuy wax rek loxo doomu aadama jógu si loxo yit yàlla li nga xamante ne moom la euh, moom la ndax moom parce que buñ ne buñ ne changement climatique fo li nga ko mën a xaymaa mooy effet gaz à effet de serre loo xamante ne day génn si dundu ni nit day dund si euh, génn si dundu ni nit yàlla defal nu ngenaanu kiir laay muy la couche couche d'ozone xam ne moo ñu tàggale ak asamaan si tàngaay bi mu waroon tàng booba na xëpp si biir nit yi léegi loolu lañ ne lii nit di dunde ak lii nit di def commencé na di ko di ko perfoore di ko bënn ba xam ne kiiraay gi nga xamante ne moom la amoon ba ñu mën a xayma kañ la sedd di ñëw mën a xayma kañ la tàngaay di ñëw Les euh, euh, gaz à effet de sérieux, yooyu commencé di bënn euh, la couche d'ozone ba xam nit mënatu la gérer boppam nit la xam la commencé la commencé donc action la yoo xamante ne loxo doomu aadama si mbiru la mais lii di def par exemple projet yu une centrale à charbon projet yi projet yu mel ni cosaay euh, li gi nga xamante ne ku nekk xam na ne li may wax toujours ne toggum wañ mënu la jur jàmm ndax foo war a mën a dijale wañ seeyal ko ba man ko moddali loo bëgg nga def ko si loolu am na lu muy produire loolu loolu muy produire muy ay gaz yu nga xamante ne toxique day euh, bëtt couche d'ozone bi donc loolu yëpp dafay favoriser le changement climatique fàttali fii ñu ngi fii ci euh, Bargny tey ku ni changement climatique wax nañ ko sànq géej gi tey melokaan beneen la am ndax te euh, xel xalaatul nga bàyyi euh, sa bagage ci ci wetu géej gi géej gi nangu ay kër di nangu ay dëkkuwaay nangu na kër yi nangu na dëkkuwaay nangu na bérébu euh, liggéeyukaay yi tey ñooñu jël site bu mel ni seen bérébu liggéeyukaay mooy site bu xel koom li nga xamante ni moom mooy avancé géej gi ban jeexital la am ci ci liggéey bi ci bërëb bi ni bindoo béréb bi. man jeexital bi mu am bari na jeexital yi mu am bari na bu jëkkoon. ay penc bax yi ba minam seen ay penc la woon nit ñi dañu daan toog si plage bi jàkkaarloo ak géej mee boo toogee si penc yi dangay gis naaxi jën yi ñu nag naax bi génn na ñii mbaal dog dem mbaal jow seen mbaal laaw dem na bi jën bi tàng tàng nga am ay jën mais loolu lépp gisatuloo ko gis lan changement climatique bi boo demee bu njëkkoon fii ngay dem même pas un kilomètre gaaw jàpp ay jën mais léegi da ngay daw ay kilomètres et des kilomètres doo gis benn jën dañuy obligé jóge bax di dem si nooraane bi muy ay tànjax yu Joal ak fépp ngoon man lu bari changement climatique bi yàq na jën yooyu dañu daan ñëw mbaali mbaal ñu jël ko ay ay ay paan di ko natt si tefes bi ñi ñi di am ay fan di takk seeni baal ci géej jën yu bare boo boo boo récupéré jën ñi nga soxla ba guddi jot nga wàññi bu subaa nga defati la même chose mais loolu ndax mbokk yi gisati ngeen ko dara amatu lépp lu ko waral changement climatique bi te boo ne changement climatique gën a jën gën a femme transformatrice ku amul jën yoo mën a doo mën am loo transformation ku nekk xamante ne tam ay euh, jën La rareté jën bi ay ay ay ay francs si ay bon si bi bon bari na la région la am ci activité bi espace réduire parce que bu géej gi sol euh, euh, comment dirais-je banux bi bu banux bu feesee espace bi ndox moomu day day tasaare si si si xel ko bu ko defee espace bi nga daan am pour di ko lakk doo ko amati loolu bu nawet ñëwee gën dool ñëw dool si kenn du amati foo jaar kenn du euh, géej gi day sëqatal na nit ñi ba nit ñi kenn amatul foo foo foo nekk ku amatul foo nekk foo dëkk toj kër yi avancé te moom géej du arrêté géej moom du arrêté te at mu jot day gën a yéeg bon loolu def na ko suñu suñu liggéeyukaay mooy li muy sol euh, banoof bi banoof bi du sol géej gi loolu lépp am yaakaar ko nekk si te géej gi bu bu ko naxee gaal yi ñu mënatee dem géej dañuy pour ñëw ñu teer problème lay doon dañuy obligé ñenn ñi seeni gaal di toj ñenn ñi di dem yeneen i dëkk di fa teere bon am na gàllankoor suñu suñu liggéey. par exemple ci gàllankoor yooyu wax nañu euh, géej gi muy euh, génne ndox mi ndox mi euh, bañ a dellu ndax am na yeneen gàllankoor yoo xam te ni xëy na tey mun nañu wax ne érosion côtière bi sotti na ko ci seen bërëb muy seen bërëb liggéeyukaay wala seen bërëb dëkkuwaay. waaw Assane loolu am na jour ba nga xamante ne je pense bu ñu fekk yoof xam nga ban année la woon mais dañ dem ba foofu ñu woote ne. képp ku dëkk Bargny na ñëw parce que booba dëkk baa ngi raw xamuñu lan moo tax loo boo xoolee lu mat ay cinquante kilos au même plus plus dañu gan benn ganax moo ñëw boole gaal yeeg machine yeeg mbaal yeeg yëpp xëpp si biir dëkk ba keroog ku dëkk Bargny fanaanoo seen dafa fekk ñun ñu nekk appel ba mais dañu yónnee ay kaar yóbbu ko Yoff ni képp ku dëkk Bargny nañoo dem parce que boobu Bargny ma ngay raw kër yi da ngay gis gaal ba nga xamante ne ñi amuñu si pexe mais bu ñu ko yëkkatee nan lañ koy def si biir kër yi lañ koy yëkkatee ba tey ji am na ñoo ne seen matériel euh, mu ngi des si géej te loolu depuis que ñu bien vrai yàgg na yàgg mosuñoo gis ñu demee noonu te loolu lépp boo xoolee si effet changement climatique la ko ngay lakk sa jën ba pare dem ñippi géej gi gannax sol ba nux bi Ndeye Yacine bi wax ba pare solaale site de transformation bi nga xam ne say jën fa a nekk loo si man daaba da ngay ñëw li nga mën a seet bi nga seet ka te xam nga ne même boo ko seet sa amatul maanaam nga lakk ba pare lakk ba pare ba jën rek da ngay weeri rek ba xam ne rek dara desul lu mooy yëkkati ko dem woowal ko jaay géej gi ñëw sol ko ba mu fees ak ak ak mbeex mënoo si dara lu mooy taxaw loolu boo ko def da nga koy da nga da nga koy perte te loolu yëpp si effet changement climatique ñun si lañ si lañ si lañ ci wàllu koom bi li nga xam ne moom mooy